jox na leen euh, nga xam ne rek mooy ay consigne heureusement avertiru leen ñu ngay Leewtoo su xisaaf mépp na waaye dafa mel ni sa waay da koo ñime ñaari mbër yi ñu ngi Leewtoo ñu ngi def déplacement latéral comme ni ñu koy waxee ñu ngi def déplacement ah capitaine ngay mépp capitaine ngay mépp ndaxte ñaari mbër yi dañoo xaw a neexoo waaye yaakaar naa ni bu songoo amee rek jël mën naa feeñ arbitre bi sifflé waat ne waaw mënta ñàkk avertissement mënta ñàkk su nekk am na avertissement si diggante ñaari mbër yi di suqi saaf ak capitaine ñu ngay delluwaat gannaaw ba arbitre bi sifflé dellu waaw suqi saaf song na suqi saaf song na waaye cong mi daa ni daal dafa bëgg nax sa waay waaye du ko nangu ñaari mbër yi ñu ngi cokkaasante diggante Soukhi Saff capitaine rek ku nekk yaa ngi waajal waaw capitaine nga koy mépp capitaine ngay mëpp ndaxte li ñuy def moom nu roogul am cong ay cokkaas rek la ñuy def waaw waaw mu ngi ko mooy mépp na dóor na capitaine daf ma ni ku bëgg a jeexal combat bi capitaine daf ma ni ku bëgg a jeexal combat bi waaw capitaine gay dóor buntu lay wut buntu lay wut waaye dafa mel ni nii capitaine moo gën a moo gën a ñeme ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ndaxte diggante ñoom ñaar il faut am ku si jël li nga xam ne rek mooy engagement bi ndax jël ma a am jàppante nañu jàppante nañu capitaine ngay dóor buñ jàppante le mu jeex jàppante nañu ñaari mbër yi ku ne jàpp na ndengeñ na capitaine ndengeñ na ko capitaine ndengeñ na ko ah suqi saaf ngay dóor kaawa du am baar kaawa du am a ah, ah, daan na ko capitaine daan na ko capitaine daan ko da koo nax capitaine da koo nax quatre appui nañu xaar ba xam lu arbitre bi wax arbitre yi lu ñuy wax arbitre yaa ngi consulté daan na ko capitaine daan na su xis gannaaw ba nga ah, sa adversaire daf man danga ko nax non. moom nee ko nax. dëgg la dëgg la ñii ñoo ma conseillé bul xeex. billahi wallahi ñii ñoo ma conseillé. maa ngi gërëm caari yëpp di gërëm sama gars maa ngi gërëm ñëpp. billahi wallahi wa tallahi kontaan naa maa ngi koy delloo yàlla. lan nga ñaan sa adversaire. maa ngi koy ñaanal bu amee benn combat bu du sama gars yi yàlla ko yàlla may ndam. maa ngi gërëm caari yi képp. lan ngay wax supporters yi ñëpp. supporters yi supporters yi ñii aw ma seen fay. ñoom ba ma góor Kan Alaaji Kan waaw. billahi wallahi wa taala suñu pay mi ama foyam daadu jël sama kër maam maa ngi di nuyu di gërëm sama baay jaajëf waay jërëjëf Kafilane jërëjëf